ذي الجود

maa ngi leen di ziaré bu baax maa ngi nuyu mbollem ñi nga xam ñoy dégg sama euh tay day bis bu reuy bisu mbegg la tay bisu iit la bisu bisu fête la tay bisu bisu ndam la bisu kañ Cheikh Mouhamadou muntaka ak magal ko la ak sant ko bu baaxa baax ci taxawayam ak ndokkel ko ci xewal gi ko seigne Touba defal waye bisu soñna la bisu takkaat la yi la bisu pëstéef la wajalat mel ni defaguñu won dara andat ak mom liggey bi ndax kat batiment yi dafa jëmmal liggéey bi waaye nag njàngale mi ak charge yi nga xam ne ñoo ñoo ànd ak njàngale mi loolu sëriñ bi la war te bu ma nee sëriñ bi la war rek mooy ñun la war kon nañu góorgóorlu bu baax xam ne tey du bisu tekki laxasaay bisu takk laxasaay la ndax ki ñu àndal dane axdimuhu ilaa duxulil janna day liggéeyal yonent ba keroog muy tàbbi aljanna kon ko ku ànd ak moom bul bul wut bis booy wàcc bul seet bis boo xam ne rafet na ci yow rek nga ne am naa la ma doon sàkku bàyyi naa déedéet yàlla mi ñuy wut di ko wut ci sëñ tubaa dalewul fenn te yemul fenn te bis bu set dana feeñal ci sëñ tubaa loo xam ne bokkul ak la mu feeñaloon dara taxlu wa laysa tan xafit la wax kon képp koo xam ne ànd nga ak sëñ tubaa bul yemale sa bopp fenn bul yemale sa bëgg-bëgg fenn ndax moom yemalewul boppam fenn ci boroomam te boromam jombalewu ko dara ci boppam kon tey jii nañu fàttaliku li sëñ Muntaxa waxoon liggey bi yep yëkkati kaddu yalla la illa kalimaatillaahi al kon nañu xamne la ilaha illa allah rasulullah kep moy liggey bi te lolu tàmbaliwul fenn yemul fenn kon nañu wat te santat te begat te fas wat yeesal sunu passeport ak sunu passeport ak sunuy laxasaay ma ngi leen di gërëm bu baax di leen sant assalamu alaykum warahmatullahi taala wa jef jere jef te di wax li de ndamu der bu ñuul la doon ak fo man bok rek lii ndamu lislaam bi yépp la lii ndamu sëñ Tuubaa la bu leen fàtte ni bi yoonu murit dee soog a jub jàppoon nañ ni murit beneen taxawaay la am duma fa àgg waaye tey de sëñ tubaa si bésam bi wane na ni yàllaa ko ñor arxuraan a ko ñor sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñor ba mu yëkkati lu toll nii sëñ Mountakha yëkkati ko ba tey ñu koy ubbi te niñ ko ubbee seetal ni mu ni mu neexe si biir xol gannaaw ba nu wonee yëf yi nan la tëddee arxuraan la nu jëkk dalal si ñi nga xam ni ñoo wër jëkk jàng fii xam ngeen kii werante wu kenn du werante ni sëñ Touba dafa dëkkaaleek arxuraan feeñ na ci bés bi kon lii ndamu lislaam bi yépp la waaye nag ndamu der bu ñuul la ndax kër sëñ tubaa fi mu àgg deram la jëkk kaweel ba pare nag kaweel fa mu bokk yàlla boole ko mu bokk senegaal kon nag ñun suñu yàlla defee ñu doon ay taalibe sëñ tubaa ay murit yoo xam ni gëmunu kenn yaakaarun kenn doy loon kenn ku dul sëñ Tuubaa danoo sant yàlla ci bés bii ba pare ñaanal sëñ Mountakha sëñ Mountakha waxoon naa be ma ubbi Mazaalik ni leen xéewal bu yàlla ca la si ñun ak si lislaam bi yëpp ku ko déggoon day wax waxu daanukat la waaye tey université bi bésam bi wane na ni sëñ Muntaxa léppam xéewal la yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool yàlla na nu yàlla dégg suñu ñaan gi tey di altine fukki fan ak juróom si weeru rachab lii xew fii Touba di doon ndabu l'islam bi yëpp di doon ndamu der bu ñuul bi yëpp di di doon ndamu euh, euh, murid yëpp wax dëgg yàlla war na nu ñu ñëpp delloo njukkal sunu borom nan lañ koy delloo njukkal si kim nu booleel mu jël nu teg nu si yoon wi sëñ tubaa bëgg ba nu agsi fii kooku nga xam ne bëggul ku dul sëñ Touba wuti lu dul ngërëmal sëñ Touba mu Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. mel ni moom mu mel ni moom ko gis-gis la ne bi mu wax ci fan yii bu université bi noppee dañuy jublu ci jéem a fexeel ndoxam laajte gerte mu egsi biir tubaa yooyu yëpp nag dana am xam nga fii moom Touba daal soo seetee xam nga sëñ Saliou dafa ma wax loo xam ni mooy atte bi mooy atte bi nee na ma Makka Medina Arabie Saoudite sunu ñaanu maam Ibrahima la woon moo doon ñaan ñaan gi agsi toog nañu lu man ñetti junni at xéewal yi di soog agsi dëkk bi amagul téeméeri at mel nii kon ñaanu sëñ Tuubaa gi lu mu la wax rek dana ñëw ndox mi dana walangaan avion yi di wàcc waaw euh, euh, euh, capital sax day mujj Touba dafa jël capital lem ka moom doon capital capital africaine di waxuma capital Sénégal mais capital africaine ndax kat lii lii nit ñi mën nañ jóge fépp si Afrique ñëw di jàng si mën nañ jóge fépp si Afrique ñëw di jëgaan si xam-xam ndax kat nee naa leen ñoom dañu jóob ñu yaakaaroon ni murid yi ni noo sukke di su jóot noonu seen noonu la seen xel euh, sukke déedéet nee naa leen sëñ Tuubaa xam-xam bi mu meññent bàyyi ko fi tepp-tepp yi rek la noo jariñoo bés boo xam ni ah, xéewal googu taxaw nañ si taxaw bu wóor àddina bi yëpp daan si jariñoo jërëjëf